ibnul Qayyim dane nit ku ne am na yenti kër mbaa nga ne am na ñeenti jaaruwaay te kër ga ci jiitu moo ci gën a tuuti gën caa xat ga ca topp gën koo rëy lool ga ca topp gën koo rëy lool ga ca topp gën a rëyaat nga xam ne kër gu mujj ñëw rek gën rëy ga ko jiitu woon ba muy yent kër gu jëkk gi di ca jublu biiru yaayam kenn ku ne bu ko yaayam ëmbee sanc na foofee muy kër muy kër goo xam nag moom day xat te metti te tiis bi ca génnee nag daal ñëw sanc ci kër gu àdduna gi nga xam ne dafa yaatu te féex nga xam ne yàlla bu ko soobee mu bàyyi ko fi ba mu jot fee fàggu aw yiw ñu war ko koo fay mbaa jot fee fàggu aw ay ñu war ko fay aw ay ndax kenn ku ne jëfum rek lañu koy fay mën naa min nag këru àdduna gi moom bañ fee yàgg agusah sax ci fe yàlla jële ko fi waaye lu mën di am daal yaari kër ngoog mbaa nga ne ñaari ñetteel ba nag mooy bu faatoo dem sax ki faatu la dalee fam faatoo ñu suul ko ak bañ koy dekkal taxawal ko di fay loolu moo tudd dunduk barsax këruk sax këruk barsax googu nag nee na ni mu gën a yaatoo àdduna mu ngi mel ne ni àdduna gën a yaatoo biiru ndeyam moom nit ki dafa mel ne it ci ni ñu waxe ni kumpaam di dañe bu yàggee ci àdduna nga xam ne daa wute lool ak ba mu nekkee ci biiru yaayam bu faatoo itam ci dundu bar sax googee kumpaam day dañ lool lool ba weesu lool lool ni nga xam ne moom la ame woon ak xamako xàmmee ca ba muy dund ci àdduna moo tax ñu naa nit ñi dañuy nelaw rekk waaye bu ñu faatoo yeewu maanaam ku xës faatu rek day mel ne day jàkkaarloog la mu umpale ca ba mu nekkee ca àdduna mbir yépp leer ko nàññen leer goo xam ne rek faaw mu rëccu mbir mi su ko xamee woon nii nangam su ma ko xamee woon nii nangam. ñeenteel ba nag mooy këram gay mujj te loolu mooy buñ ko dekkalee ca bis penc taxawal ko fay ko jëfam benn rek mu dëkkee àjjana mbaa mu dëkkee sawara waaye ñaari dëkkuwaay yi moom ñaari kër yooyu moom mënu mooy daañu wax nag ne am na fu tudd laaraaf nga xam ne neexewul ne àjjana naqarewul ne sawara daa nekk ci diggante ba rek nee na ñu fa la yóbbu ñi nga xam ne seen jëf yu yiw ak seen jëf yu safaan dafa yemoo képp képp dara ëpp ci sa moroom mu ñaan nag moom Ibnul Qayyim mi doon wax loolu yàlla tàbbal nu ca àjjana ja te musal nu ca sawara woowee dafa mel ne sax ni ñu ne moom la sëñ bi moom daan nettalee biirub ndawub nit ak àdduna ak barsax yépp da koo tudde rek ay sanc yoo xam ne fu ca nekk dafay sanc rek toxoo fa jàll fa ca des nga xam ne nit day njëkk a ci biirub ndeyam ba gental ko ñëw dëkk ci àdduna ba gental ko dëkk ca barsax nag ba gental barsax te mooy buñ ko dekkalee taxawal ko di ko fay jëfam ne boobaa nag lay door am kër te faaw mu am kër moom ci yaar yooyee muy àjjana mbaa sawara nga xam ne li fee demagul àjjana mbaa sawara rek dëkkagul ci këram moom nit ci ab sanc rek la nekk boo xam ne faaw day gent faaw da koy gental jàll fa ca des aljana rek moy kër mba sawara ibn khayyim dafa daaneele ne jaaru way yi fu mu ci tollu rek mo doomi adama dana wuté lool ndax na muy mel bu nekkee ci biiru yaayam xam nga ne wuute naag ni muy mel ci bu nekkee fii ci aduna mu yaatu mii te féex batay bu génné aduna dem bar saxit xam dundu bar sax nga wuté nak dundu aduna gi batay bu génné bar dem ci penc ma joge ci dem aljana ba sawara it gis nga ne këru ñeentel goge wuté na lool ak kër yi iya ko jitu ko ibn qayyim neena ñeent jaar way yi bu ci ne bu ci tollo du bok ak bu tollo ci jaar way bu ci dess ba taxawi nak ca aljana ba safaan ba rekk